loolu ñun dañ ciy sant yàlla parce que ñi mu fa mettre enfin parce que jàpp naa ne euh, bugguma sori. Mhm. mais ñooñu ku ci nekk defe naa tënku ci li nga waxante ak président Macky Sall moo tax seeni lettre démission nit ñi jotu ko. mais loolu ñoom lu ñu bindoon la ñoom pare woon nañ ku ci nekk bind na mais nag bugguma aussi. dugg ci seen diggante muy Aminta présidente Aminta Mbengue Ndiaye ak le président Abdoulaye Daouda Diallo ku ci nekk li nga xam ne euh, mooy sa diggante ak président bugguma ci xuus bu dul ay nit ak seen i collaborateur ak seen diggante ak président ak li nga xam ne nag dañ ko ngalloon ci seen ndodd dañu yoral ko réew mi defe defe naa ne ñoom taxawuñ fa siisuwuñ fa li la euh, euh, li président def aussi warugalam la décret président moo leen fa nome mm-hmm. décret président moo leen fa jëlee prérogative am la. kenn du ko ci ŋaññ kenn du ko ci xarab. mais doxalin yi bëggoon naa ci am sa avis en tant que homme politique waxu waxatuma sax député bi mais responsable politique maanaam tey jii nii mooy fexe ba seen motion bi tenu bi doo am benn mhm. ñaareel bi aussi dindi ñi nga xam ne ñoo jiite conseil yooyu noonu xam nga doxalin bi fu mu ñu yóbbu mhm. mooy ci jiiki jaax fu ñu yóbbu mooy dem ba ci miir doxalin bi doxalinu mhm. cuune la doxalinu doxalinu cuune dañoo am état bu cuune parce que état boo xam ne dafa warul dem ci defante warul dem ci dàggasante warul dem foofu ci ci ci li ñuy waroon tey mhm. mooy fekk heure bi def nañu orientation budgétaire premier ministre def na euh, déclaration politique générale am définir politique bi nga xam ne président de la république ci prérogative am la ko ko nommé mu war a wax askan wi liñ ma dénk nii laa ko bëgg a doxale fii laa jëm nii laa ko bëggee jàppale ni ni weccante xalaat ak député yi nga xam ne ñoo fa teewal euh, ndaw euh, pencum ndaw réew mi wax ak ñoom donc comme munul loolu mhm. ñemewul loolu xalaatul loolu lu mu mën mooy dàgg sante du ma fa ñëw du ñu ay député nangam nangam donc yooyu tàmm nañ ko ëpp yi ñàkk respecte institution réew mi commencé wu ko bu mu nekkee premier ministre def ko continuer di wéyal mhm. ñàkk respecte sëriñ si ñàkk respecte institution yi ñàkk respecté justice respecté wul dara donc loolu la continuer di doxal dañu yaakaar ne bu egsee ci état quand même nekk benn niveau mhm. dafay euh, xam ne léegi kilifa la béy day wey mbuus mhm. donc nag mais moom mu ngi gën a nekk doxalinu xale doxalinu cuune